dalee nag jàmm ci xibaar yéenekaay yi ci li gën a fes ci biir semaine bi ñu daal di koy tàmbalee ci seen Afrique gi nga xam si ne dafa daal xëy fesal ak jaay doole gi nga xam si ne yenn ci kilifa yi ñu ngi koy def ngir foqati suuf waaw foqati suuf ndax suuf soo xam si ne dafa mel ne dañ la koy sarax sax wala nga daal di koy euh, foqati ci far la force kii nga kii di Pierre Goudiaby bi mu déggee lu nu mel daal koy métti li nga xam si ne maire bu point 1 def na ko ngir construction dafa bokk ci géej gi Pape Goudiaby daal di sol aw dàllam di ci dox ba porté leen waaye plainte boobee dafa mel ne sax daf ko mujj yéem ndax ñim porté dafa mel ne dafa leen a doole te réew mi di Sénégal jaay doole rek a fi nekk ndax terrain yoo xam si ne dañ cee tudd ay millions yu bëri ñu daal di ko la koy jaayee ci un million wala deux millions loolee ak may sax lay niroo te luwaa bu Sénégal daf ko dàq waaye Sénégal jaay doole gi fi nekk tax na luwaay ne ñu daal di dem ñu ci Togo mi nga xam si ne fan yi yëpp mi ngi waajal ab manifestation euh, ndax fan yi yëpp ñi ngi génn ci mbedd ki nga xam si ne moo def Fort Niassim ndax ki nga xam si ne moo di Fort Niassim bëgg mu dem abal leen temps yi yëpp ñu ngi génn ci mbedd bi waaye alxamis bi bi ñu génnee ci mbedd bi métti woon na ci ñoom lool ndax ndax du police yi ak gendarme yi rek ñoo leen defeere woon amaat na ñeneen ñoo xam ne dañoo yoroon ay ngànnaay yu mën a gaañ nit ñi ci wax ne lii de ku ñu ko waxoon du ñu ko gëm ndax ki nga xam si ne moo di forñaasim ku ñu waxoon na dina utiliser ay mélaste yoo xam si ne dañuy songu nit ñi ak di leen gaañ am na si ñoo xam si ne dañoo bakkan sax ci nguurug forñaasim kenn xalaatu ko ñu koy def làqatuñu woon sax te ñu ci bëri xamoon nañ ne meleste amoon na ci réew mi ngir jàppale forñaasim jàppale forñaasim ba mën a jotaan nguur dañu daan raaxalu biir rek waaye bi la yoon ci alxamis bi biñ génnee fees nañ lool di def la leen neex te kenn mënu ci dara